salaamaaleykum képp koo xam ne yaa ngi seetaan ci Koungheul info rek wala nga dugg ci siti Koungheul info maa ngi lay nuyu eh, di sant samay ñaanu waajur bu baax eh, di sant yit ñi nga xam ne ne ñoo am kóolute ba teg ma ci mbir mi ba lii yëpp eh, yàlla nar ko dogal en même mu jiite centre ressources centre ressource bu Koungheul euh, yàlla def ne centre ressource boobu tey moo indi ba formation langue de signe bi am tey jii fii ci école 1 te aussi maa ngi wax waa COSA di kontaan ci ñoom bu baax parce que surtout li may faral di wax rek ñun handicap euh, pour ñu nit ñi jàppale ñu dafa metti lool dafa jafe tey waa COSA ñëw defal ñu lii ah mënuñ lu dul di ko di ci sant rek te di kontaan ci loolu euh, lépp nag yàlla suñu directeur action sociale muy Eugène Samb wax dëgg yàlla noppalikuwul guddi noppalikuwul bëccëg ndax nee naa man moom dama mën a déranger doomu aadama su ma déggee loo xam ne ne rek luy jëmal suñu association ci kanam man duma ko bàyyi mu noppalu ko mukk ndax lépp lu ma dégg ci lu baax loo xam ne ne dañuy jëmale kanam dama koy woone ko ah Eugène ñun de am na partenaire bii ak bii ak bii léegi nag lan lañ war a mën a def ñu woote réunion toog ak association bi waxtaan ak ñoom bañ tënku te tënku boobu yëpp euh, ñun dañuy jiital directeur CPRS ndax mënuñoo dem sans ñoom ñoom it mënuñoo dem sans ñun ndax tey jii lépp lu am lu ne ci handicap ñoom ñooy suñu lépp ñun it ci lañ bokk ndax léegi gis euh, formation bi waaw euh, formation bi ñu ngi ko démarré depuis le première le première lañ ko démarré le première ba tey ñu ngi ci euh, mu war a jeex le huit le huit la war a jeex incha allah ñu am ay formateurs yoo xam ne ne jàmbaar lañ. parce que ñu ngi jóge ba Casamance ñëw fii bëgg ñoo jàppale pour rek rien que pour euh, sourds-muets yi mën a def seen langue de signe mën a bind mën a lire ndax tey jii mënoon nañoo wax ne ne tey ji formation xaalis bu weex tal nga war fay doomu aadama wax dëgg yàlla ñoom it ñu jël seen engagement ñu ne ñoom lu ñu am ñu teg ko seen loxo ñoom dana danañu jàppale ñu leen di ci sant bu baax di ci gërëm di leen di gërëm bu baax soumier soumier yi nag 40 soumier ñoo fi nekk 40 40 soumier ñoo ngi fi am na ñoo xam ne ne tamit ñoo xam ne ne dañuy ñëw tey ñoom it ay handicapé lañ ci ci euh, ci association bi lañ bokk dañoo ñëw it ñoom pour ñu jàng si ñu ñëw jàng si buñ ko xoolee Euh, huit personnes ñoo ci nekk ñoo xam ne ne ñoo ñëw pour jàng pour suba ñoom it ñu mën a jàngal ñeneen te ñun tamit dañuy ñaan yàlla lii mu jëm ca kanam parce que ñu ne liggéey booy def liggéey bu ne rek dafa war a am suivi te suivi boobu tamit bëgg nañ ñu jàppale ñu ci bu baax bëgg nañ tamit ñu jàppale ñu ci leneen ak leneen ak leneen Baye Ndiaye nag Koza. foofu laa euh, waaw euh, Baye Ndiaye mënuñ lu dul di gërëm waa Koza Koza tey su ma ko xamee tey su ma xamee Koza yàlla ak docteur ñaa parce que ay at maa ngi liggéey ak moom ci biir hôpital bi ñu toog waxtaan ak moom mu xamal ñu ne am na benn projet bu fi nekk. bu fekkee ne maa ngi xool ak ñoom waxtaan ak ñoom bu fekkee ne mën ngeen faa nekk ngeen nekk fa tey jii dañ cee kontaan parce que ñun handicap suma ma sañoo dañuy am benn euh, foo xam ne ne ñun ñoo ko moom moomal suñu bopp loolu nag dafa jafe lool dafa jafe ñu am benn centre boo xam ne dañu koy occuper lépp ci biir si centre bi waaye daal loolu dafa jafe daal léegi nag ba xoolee ba xool ñu xool ba ñu xool docteur Niang docteur Niang expliquer ñu mu ne Baye Ndiaye ñuy waxtaan ak Baye Ndiaye malheureusement Baye Ndiaye at maa ngi dégg turu Baye njaay ba ma xamee Baye njaay ak léegi matagul sax euh, weer motagul weer wax dëgg yàlla muy nit ku baax nit ku dal waaw moom it mu am engagement engagement bi mooy lan mu ne centre accueil bële tey yii ñun la ko bëgg a jox ñun handicapé ñu dem nekk fa di daan suñu doole xale yi bañ a taxawaalu suumu yi ñu am ci lu ñu jàpp mën a def seen lengage de signe centre euh, centre centre euh, centre bi nga xam ne ne xale yi ci la ñuy jàng centre ressource am na handicapé yoo xam ne ne tey jii mënuñoo dem école ñu ngi seen biir kër yi di raam amuñu puus puus am na ñoo xam ne ne tëdd la ñuy def ñooñu boo leen jëlee teg leen jox leen fenn fu ñu nekk ñu foog naa tamit seen xel wala seen parent yi tamit dañ ciy gën a kontaan ndax parce que handicap parent bi ci boppam dafa sonn ci handicap bi soo amee foo ko teg am li muy def ah kooku lu dul sant yàlla waaye nag tey jii bu ñu sañoon centre yi bële gendarme yi ñu jëlee leen fa ñu nit ñu am foo xam ne ne mën nañoo def suñu activité tey ji fu ñuy defee suñu activité fan la action sociale lañ koy defee tey ji formation bii normal bu ñu amoon foo xam ne ñoo ko moom fa lañ koy defee ñu ñëw ci école yi àbb école pour ñu def ko tey jii bu fekkoon ne ne du feetu feetu pag yi konoon duñ ko fi mënoon a defee konoon dañuy seeti feneen foo xam ne war nañ ko ma mën a defee dañuy àbb wala ñu dem di luyee ji tey yàlla def na ne feetu pag yi moo am moo tax ñu abal ñu fii tamit di di remercier euh, directeur bi directeur bi amul benn problème parce que dama dama toog sama kër woo ko téléphone mu ne ma loo bëgg ci école bi rek ñëwal ma ne ko ma des benn salle de classe laa bëgg euh, wax dëgg yàlla di ko sant di ko gërëm parce que mënoon naa wax déedéet euh, mën naa am ñu am luñ ko fi yàqal wala leneen du ñëpp mën a supporter handicap du ñu bëri ñoo ko mën a supporter am na ñu ko mën a supporter am na ko mën a supporter dañoo bokku ci société bi nañ xalaat loolu parce que tey jii lu may faral di wax rek carte bi nga xam ne ne moom ngay voté ji mënoo ràññee carte handicap bi ak carte valide bi déedéet waaye ñun ñëpp ñoo bokk. nañ defar yëpp ñu yemoo man de loolu laay ñaan waaw comme ni nga ko waxee léegi am na ñeneen ñu ko nekk ñun autorité amaana ñoo leen fa yóbbu ba seen bërëb amee jafe-jafe tey gis nañ ne doomu Koungheul boo xam ne néew fi mu ngi jéem pour mettre leen ci condition yu baax lan nga waaw maison d'accueil boobu tey jii doomu Koungheul moo ko yëkkati bëgg koo teg ci suñu loxo waaye tamit dafa am ñoo xam ne ay autorité ñoo ko jël teg ko fa muy ay gendarme man wax dëgg yàlla def naa ci samay dem fa démarche woo naa préfet woo naa monsieur le maire ñëpp ku ma ci wokku ne mu ne ma waaw dana génn may ñu tuuti. maire bu ma mujjee wax ak moom dafa ne ma day day defar fi euh, fii ma yi nekkoon fii lay defaraat pour ñoom ñu déplacé wu fa depuis boobu ba léegi nag ñi ngi déglu ñun ñi ngi tàllal autorité yi ni ñu dimbale dañoo bokk ci société bi bu ñëwee wax suñu soxla ngeen fajal ñu ko waaye di ay va et lu may faral di wax du ma ko nëbbu man mënuma va et bi te mënuma la chaque jour di la woo téléphone nga dama ciy gis sama bopp dëgg la parce que dafa am lu ma bëgg lu ma bëgg loolu dañoo bëgg ñu nit ngeen jox ñu ko ngeen may ñu cër lépp loo xam ne ne ñëw nañ ci yéen wax leen ko defal leen ñu ko loolu la ñuy ñaan parce que dañoo bokk ci société waaw loolu la amal may yo di jaajëfal di leen di jaajëfal waa Koungheul info surtout Matar Sarr Matar Sarr foog naa man dama ko sonnal sax di ko woo téléphone di leen di woo di leen di ne ah ñu dee lii lañ bëgg ak lii di jaajëfal waa département bi yëpp képp koo xam ne ne autorité nga di seetaan lii rek ñu ngi lay tàllal suñu loxo yéen ngeen jàpp ci parce que ñun it dañoo bëgg suba suñu doom yi suñu rakk yi ñu am lu ñuy tekki parce que handicap ci xel la rek ci xel la ndax handicapé tey boo ko joxee benn affaire mën na koo def ba mu normal nee naa man sentiruma sama handicap de boo ko tuddul sentiruma ko maag valide yi ñoo yem maag valide yi ñoo yem parce que lu ñuy def laay def fu ñuy toog fa laay toog lu ñu bëgg loolu laa bëgg waaw di leen di jaajëfal yéen bu baax di jaajëfal ñëpp di jaajafal it sama directeur CPRS di jaajëfal képp kuy seetaan. asalaamaaleykum euh, je veux me présenter d' abord man euh, Famara Badji laa tudd maa ngi jóge si région de Ziguinchor département de Bignona, dans le centre de réinsertion sociale, la commune de, de Bignona. Euh, man, enseignant là à langue des, à langue des euh, Kungel pour euh, initier, former aussi euh, les surmiers et les entendants euh, du centre de, de Kungel. Donc, c'est ce que nous avons fait. Nous avons waa site bi bu baax ak seen teewaay bi kontaan nañ trop ak président tamit euh, association bi ñu koy gërëm di ko sant bu baax ak seen directeur bi euh, monsieur Semou. tey bu ñu bëggoon xam ni mooy lan la ñu koy langage des signes mooy euh, manière bu ñu jàngalee mooy ñi muuma yi ñu tëx waaw ñu ngi leen jàngale si par des par des signes par des par des gestes. parce que ñooñu du question du ñu wax mais y une manière de de se communiquer avec envers envers mooy les les les les signes ci ci signes yooyu lañ lañ jàngale euh, donc on avait pris euh, on avait, on avait la formation à, à Dakar. Donc, on nous a interpellés pour venir ici, pour nous jangalen tamit ci signaux yu, signaux lañ nek di len di len jangal. D'accord. Gis nañ né du premier premier ba légui man presque une semaine. Ba uh-huh. japp na ngir gaay mëna am. Non, temps bu mom deug bi dafa gatt. dafa tuuti. Euh le langage des signes, c'est pas aussi comme les comme les autres comme les autres langues. Ça demande beaucoup de temps, mais nous sommes en train de réfléchir. si possible, euh, après les, les, vacances, on va revenir pour faire un recyclage, augmenter aussi la capacité de, formation pour qu'ils puissent vraiment euh, prendre ça, euh, étudier ça normal. Mais ah, pour une semaine, vraiment, c'est très petit. C'est très petit, oui. Ouais. Mhm. non dëgg-dëgg amul ci àdduna bi li nga xamante ne moom mun nga wax ni yomb na wala wala jafe na c'est une question de volonté c'est une question de volonté si on croit je pense on peut arriver là où on mais dëgg-dëgg métier bi nga xamante ne moom dafa métti parce que dafa laaj vraiment nga taxaw physiquement euh, si tu n'es pas prêt physiquement pour nga def ko des des des métiers parce que tout ce que sa fais ça demande d'énergie parce que il faut faire des gestes sa loxo yëpp da koy da nga koy yëngal sa yaram yëpp yombul dëgg-dëgg moom waaye vraiment c'est dafa dafa métti dañu mais tey initiation bi ngeen nekkoon di def jàpp ngeen ne ba ngeen commencé ba léegi ndaw ñi ñu ngi dégg li non franchement euh, on a l'espoir par rapport depuis qu'on avait commencé aujourd'hui c'est le troisième euh, jour on a vu y a un changement petit à petit euh, qu'on avance on va euh, y a un changement et surtout la détermination des des des des élèves que nous sommes en d'encadrer parce que ki nga xamante ne moom woone na moom dafa bëgg day day yomb day yomb si moom quoi mais ki nga xamante ne moom moom woonal ni bëgg na bëgg na day jafe si moom quoi donc ils ont montré que vraiment ils ont l'envie bëgg nañ donc loolu daf ñu gën a yombal quoi si si liggéey bi quoi te loolu lañ gis quoi